politique waaye nit yi dañ foog ne Gambia fii politique mooy saagante wala ñu ŋaañante wala comme ñuy dal comme ñu ni neen kii pël la ki joolaa la kii soose la kii olof la loolu moo tax ah, ba ñu bëri duñ dee sawar a dugg si politique